إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمنه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمنه المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki taalibe ñi ngi leen di ziyaara bu baax di sant sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba bu baax a baax xam ngeen ni ñu ngi waajal bis bi nga xam ni moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér sant mbooleem murid yëpp rawatina ñi nga xam ni ñoo yëngu ci xasida ci njiital. sëriñ Hamsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak sëriñ waa daara Hizbut Tarqiyyah ci njiital sëñ Youssou Diop boobaak léegi ñu nekk ci wàccaay wi mu mel ni wet gu ne ña ca féete ña ngay wàcc fii ñu nekk nag mooy mbooloo mi nga xam ni ñoom seen wàccaay mi ngi jëm ci bind xasida am na yoo xam ni jot nañ koo bind ci wàccaay wi am na ci yoo xam ni itam ñu ko waa ñu ngi koy waajal incha allah nosin woowu nag ak tëralin woowu moom la mbooloo mi daje woon tey ngir gën a yembal lépp lu jëm ci wàccaay woowu su ko defee ñu jël kàddu gi jox ko sëriñ Abdul Xaadir Mbakke bu di kilifa waa jotaay bi yëpp kilifa mboolem bindkat yi fi jot a daje yëpp su ko defee mu leeral li nga xam ni moom lañu ñu yéene taxawe incha allahu suba ak jàmm ci bis bi nga xam ni moom la Cheikh Mamadou Mountakha digle ñu fas yéene yendu fii ci kër Serigne Touba gi fas yéene yendu ci bind xasida eh, ak maas ko ak topp ko eh, jébal ko Serigne bi kon sëñ Abdoul Khadir bismillah jox la kàddu ok aouzu billah bismillah barke wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen baalu àq tey baal ñëpp àq jërëjëf suñ maam Thierno bis bii nga xam ne moom la ñuy waajal di bis boo xam ne bisum ndigal la muy bisub boo xam ne Cheikh Mahamadul Muntaka moo ci digle ñu dundalaat ci xasi xasaay di Serigne Touba yi dundalaat xasaay di Serigne Touba yi nag ñu gis ne war naa amee ci anam yëpp. mooy di ko jàng ci njàng mu sell di ko yëkkati ci anam gu rafet di ko déglu ànd ak pëstéef waaye di ko bind ndax sëñ Tuubaa moom dadaa wax ne dadaa boole jàng ak di bind yad yi taxuttu wa lisaani bu loxoom di bind làmmiñam mi ngi jàng moo tax bis bi ñu am yéene dundal ko ci bind xasaayit ak jàng xasaayit ak lépp li ci sëriñ bi digle moo tax mbokk yi nga xam ne dañuy yëngu ci bind xasiiday borom Tuubaa yi bi sëriñ bi joxe ndigal li ñu gis ne kon ñoom am nañ ci ab liggéey liggéey bi nag mooy booba ba tey kenn ku ne yaa ngi bind li nga mën ci ay xasida li ci ëpp nag mooy xasida ak nooru daare ni xasida ak nooru daare ni bind nañ ci ay lim yu bari njëkk ñuy agsi ci bis bi fii ñu toll di wax rek juróom fukk ak nangam dajeegul na fi ba noppi des na yeneen yoo xam ne dikkagul kon niñ ko waajale mooy ba sëñ bi joxe ndigal li lañ daal di yëgle ne képp koo xam ne bokk nga ci bindkati Serigne Touba yi loo man ci xasida yi na nga ko bind ñu waajale ko bis ba bala ñoo àgg ci bis bi muy tey jii ñu dajale xasida yépp bu subaa liñ ci mën a topp ñu topp ko liñ ci mënta topp it bu bis bi jàllee ñu dajewaat daje boo xam ne dañuy wut ay toppkat ñu topp xasida yooyu ba mel na war a mel ñu njukkale ko Serigne Mountakha ci liggéey bi nga xam ne doon na ko defal Serigne Touba. naka noonu itam bisu suba bi bokk na ci niñ ko waajale mooy bindkat yooyu nga xam ne njëkk bis bi di jot ñu ngi doon daje kenn ku ne yaa nga woon sa kër di bind wala sa daara di bind wala fa nga nekk di bind bu subaa ñoom ñëpp nag dañoo bëgg ñu daje fii ci kër Serigne Touba ci bërëb bii ñu nekk suba bu juróom-ñaari waxtu jotee ci suba gi maanaam 7 heures du matin lañ bëgg ñëpp daje fi bu ñëwee danañ fekk ñu waajal lépp ndax nos nañ ko ci nosin wu jub leen lu nekk wutal nañ ko mbooloo moo xam ne ñoo ko mën a taxaw moo xam ñuy defar daa yi ñu bind la moo xam kayit yi la moo xam feggu yi la moo xam bépp jumtukaay boo xam ne bindukat mënu koo ñàkk nga xam ne kum neex booy ñëw mën ngaa def sa loxoy neen waaye boo ñëwee di nga fekk ñu tegal la foo xam ne boo fa toogee jël bind rek ngay def ba ci xasida yi ñu war a bind bu boobaa itam sàkk nañ mbooloo moo xam ne koo xam ne da ngaa tabje ba mënoo maas am na mbooloo moo xam ne maas rek la ñuy féetewoo koo xam ne itam da ngaa tabje ba mënoo topp am na mbooloo moo xam ne topp rek la ñuy féetewoo nga xam ne bëgg nañ suba ñu dundal ko ci ay xasida am na xasida yoo xam ne moom lañ tànn bëgg koo bind suba nga xam ne bu fi bu bu bu yooyu matee yeneen yi ñu ci mën a dolli dolli ko ci waaye bu bu fekkente ne waxtu woo dafa xat itam ñu yem ci xasida yi nga xam ne moom lañ tànnoon ngir dundale ko bisu suba bi teewul nag teeroo nañ ko ay xasida li ci des mooy dundale ko ay xasida bu jàllee ñu toppaat xasida yëpp ba mu gën a sell ñu jébbal ko sëriñ bi loolu rek mooy jubluwaay bi jubluwaay bi it mooy dàkk bëggu sëñ Tuubaa ak fas yéene koo liggéeyal lañ ci bëgg it jàpp ne buñ ko ci amee am nañ ci résultat mooy ngërëmal sëñ bànneexam loolu rek lañ ci loolu rek mooy mooy mooy mooy jubluwaay bi jërë ngeen jëf ilal kitaabi wal hadiisi sarafa qalbi wa qalbi bi manil mustafa ilal kitaabi wal hadiisi sarafa qalbi